yéen ñiy safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun daleen jàmm ci li gën a fës ci jotaayu tënku xibaar yi dañu koy door ak lu soxal jongante gox-goxaat yi nga xam ni moom la ñu génn te la ca tukkee di ay résultat officiel ba tey jii rek fësalaguñu ko waaye fële ca géejawaay Sam Notaire ak Golf Sud tribunal départemental bu géejawaay fësal na seen ay résultat provisoire yooyu la résultat nag li ñu wone rek mooy coalition bi di yeewi askan wi ñoom ñoo jël raw gàddu gi ci gox yooyu boobule ndax Benno Bokk Yaakaar eh, ca fa nga xam ni moo di ville bu Géejawaay 29674 voix la fa am te waa Yewwi Askan Wi ñoo ngi fa am 34143 voix eh, bu dee commune bu Golf Sud Yewwi Askan Wi moo fa raw ba tey ndax 9260 eh, voix la fa am ci kaw Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni 8142 voix la fa am Sam Notaire commune foofu itam Yewwi moo fa jël raw gàddu gi ak 2393 ci ay voix ñu des ci lu soxal yooyu la jongante ba tey ñaga Touba maire ba ñu fafal bees nag di docteur Idrissa Baldé génnee nañu ko rek ca loxol yoon ba nga xam ni fa la ñu ko tegoon ni ki démb ci talaata ji moom nag bi mu jëlee ndam li ci commune boobu boobule ci suba si rek la ko brigade de gendarmerie bu Samine daal di placé en garde à vue li ko waral nak mooy coowal kërum maire sortant bi nga xam ni dañu ko taaloon te ñu tuddoon ko ci ñu woyal addu ci lu soxal njàng meeg njàngale mi intersyndicat bi lëkkale CUSEMS ak SAEMS dëgmal nañu rek banque seeni loxo tey euh, ci àllarba ji ak débrayage boo xam ni bu 10 heures jotee lañu ko tàmbali suba si alxames bi itam daañu ko dàbbali tëjee ko ak grève totale si àjjuma euh, bi ñu jëm gannaaw loolu nag xamle nañu ni daañu amal doxu ñaxtu ca Ziguinchor alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi ñu jëm ngir ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy der ci seen liggéey euh, te nag li ko waral mooy engagement yi nga xam ni gouvernement bi respecté wuñu ko ñu wëyal ak lu soxal juróom-ñeent militaire yi nga xam ni ñoom la ñu disparu te ñu jàpp ni sax dañu leen a jàpp en otage loolee nag gannaaw jàmmaarloo bi nga xam ni amoon na ci diggante armée nationale ak rebelle yu MFDC yi armée nationale sax ñoom ñoo fësal boobule xibaar ñu ñu àddu ci bésu tey bi nga xam ni nag dañu koo jagleel waa duwaan muy journée internationale de douane lu toll si nag juróomi tonne drogue te ñoom waa douane ñu saisiroon ko taal nañu ko nag bis ni tey kon tey ji rek mooy seen journée ñu war koo màggal fépp ci àdduna bi waaye rawatina fii ci Sénégal 2022 gaynde yu Sénégal yi nag jàll nañu ci quart de finale yi gannaaw bi ñu amee ndam niki démb ci kaw Cap Vert ci ñaari bal ci dara Sadio Mané nag nga xam ni dañu ko daal di woon ca l'hôpital gannaaw malaise bi nga xam ni am na ko ci choc bi mu def ci digganteem ak gardien de but bu équipe capverdienne bi waaye nag jamono ji analyse yi ñu ko defal yépp wane na ni dara mettiwu ko maanaam tane na kon njort nañu ni rek dina mën a bokk ci quart de finale yooyu le ñuy waajal Sénégal war see daje ak ki nga xam ni mooy am ndam ci diggante Mali ak Guinée Guinée équatoriale bi war a joué bés ni tey ñu woyal ak Queen Biz moom nag gannaaw ndam li nga xam ni Sénégal am na ko ci kaw Cap Vert tontu na ñi ko doon ŋàññ doon wax naan bu mu woy gaynde yi ndax da leen di um te nag ba mu leen woyee la gaynde yi nag dal di am ndam lu rëy loolu nga xam ne am nañu ko ni ki démb loolu sax moo waral ba mu fësal ci page Facebook am ne rek li nelaw ci gaynde yi moom Queen Biz moom moo koy yee dañuy jeexal tënku xibaar dañoo tuddoon mariage ci seen diggante fan yi yëpp li ko waral nag mooy Omaro moo publier woon euh, benn photo boo xam ni euh, da koo ak photo Alima ci statut WhatsApp am euh, ngir nag annoncer seen union waaye boobu ba tey nag kenn gisul photo wala vidéo buy dëggal seen sëy boobule mu mel ni kon histoire boobu dañu ko monter ngir rek nit ñi bàyyi leen xel ndax ku ci mel ni Omaro nga xam ni nag jamono ji gis nañu ni rek bësam dafa xaw a kon mu mel ni dañu ko monter ngir rek sénégalais yi daal leen di tuddaat ngir bàyyi leen xel fii la ñuy nar keppee tënku xibaar yi ma jox leen dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu woyee leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte bu si cloche de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf